président ku ko xam xam ni eh, depuis avant mu sax muy nekk président dafa fonkoon Touba bi mu nekkee président aussi amul benn màggal boo xam ne wute na ko tey nag si màggal bi màggalu Touba bi eh, mu tombé ak li nga xam ni mooy Covid 19 ñi nit ñi doon laam-laamee naan dina ñëw ak du ñëw tey aussi mu ñëw wane ni moom taalibe la wane ni également Touba ñor na ko mu ñëw eh, ngir gane si xalif général indil ko ziaram indil ko ziar tamit Sénégal gépp loolu moo tax bi ñu ko yëgee ñu nekk ay étudiants ñu bëri ci ñun nekkoon Dakar dañuy danañ dagg suñu yitte ñëw teertu président parce que lim ñu defal dafa rëy ci ñun ndax ñun amuñu lu dul Serigne Touba Serigne Touba moo ñu defal lépp ñu dëkk tuuba kon président bu fi ñëw te def lu nekk Touba euh, bu yàggul rek ci déclaration bi nga xam ne xalifa général doon na ko def ci premier safar bi dégg ngeen cant yi nga xam ne cant sant na ko le président de la république kon ñun ñu nga xam ne ñooy ay taalibe cant googu nga xam ne sëñ Mountakha sant na ko ñu ko war a jëmmal ah ñun nag ñu ànd ci nag ak suñu coordonnateur national mooy Abdoulaye Diagne ñu di ko remercier parce que def na ay mooy yu bëri pour ñu mën a teew fii également waa waa département bi yëpp kenn desul Moussa Ba moom ñu sama wet mooy le coordonnateur au niveau départemental ñëw fekk fi waa Touba aussi muy maire communal bu Touba lii daal lu rafet la aussi moo tax mu mënuñu ko manqué étudiants yëpp yi nga xam dañ koy jàppale ñëw nañ teertu ko te incha allah fii la ñu fas yéene nekk ba keroog muy dem ñu gunge ko muy doog dem parce que tamit lu ne def na ko Touba xool ci li mu def ci wàllum assainissement ci côté tali lu ne def na ko Touba kon ni dañoo nekk ci contexte boo nga xam ni euh, contexte bu doy la ci àdduna bépp mu laal Sénégal laal également Touba parce que Touba euh, dëkk bu rëy la dafay kon nag lu lépp laal Sénégal rek dafay laal Touba loolu moo tax malgré présence bu virus bi euh, empêché wul président de la république mu ñëw. loolu moo tax sax boo boo gisee carte bi dawul noonu ndax li muy def da koy dafa ñëw rek pour ziar ci xalif bi loolu nag dañuy ñaan population bi nga xam ne ñoo ngi ci ñoo ngi ci dëkk bi. di ñaan également ñi nga xam ne ay gan lañ war a ñëw ci dëkk bi li nga xam ne sëñ mun taxaw woote na ko sëñ Bass woon waxoon ni bëgg nañ 5 millions de de masques. masque yooyu nag bu ñu ko indee ba pare indiwuñu ko pour nit ñi di ko denc seen tiroir wala ñu ko ñu ko yor te duñ ko takk li tax ñuy jox nit ñi masque moo ñu takk ko ndax mun taxaam moo ñu gën a jege yàlla fuuf moom bu dee bay jël masque di ko takk kon nag taalibe bu nekk war na mën a jël ay masque am aussi di ko takk ndax ndigalu xalif général des mourides la ci loolu lañu war a sukkandiku pour di takk suñuy masque ñu màggal ci jàmm corona bi jóge fi parce que sonal nañu ñëw na kenn invité ko wax dëgg yàlla ñoo ñuy ñaan ci weeru sawar gi ñu nekk bu ñu fi jógee donc corona bi jeex fi tàkk ci Sénégal. c'est Moussa Ba le coordonnateur du euh, maire départemental de Mbacké et par maire on entend le mouvement des élèves et étudiants républicains du département de Mbacké donc aujourd'hui nous sommes venus pour accueillir le président de la République du Sénégal et qui est en même temps le leader de notre parti qui est l'Alliance pour la République. Et il est venu dans la ville sainte de Touba, euh, une ville qui se trouve dans le département de, de Mbaké. Et quand on parle du, département de Mbaké, on fait allusion au deuxième département du Sénégal en termes de population. Et quand on parle de la ville sainte de Touba, on fait allusion à la deuxième ville économique du Sénégal. Donc, et le président est venu dans un contexte un peu particulier, marqué par la présence du virus, euh, de la maladie à coronavirus. Donc, raison pour laquelle nous lui réservons un accueil qui est fait dans la sobriété, comme il l'a souhaité en tant que le leader de notre parti. Donc il est venu dans un contexte aussi qui est marqué par euh, la préparation euh, du Grand Magal de Touba, qui est un événement qui euh, regroupe beaucoup plus de monde que n'importe quel événement dans le monde. Si on se réfère uniquement au dernier Magal de 2019, il y avait 5 millions, plus de 5 millions de pèlerins qui étaient venus euh, célébrer euh, le grand Magal de Touba ici dans la ville sainte. Donc, et cette année, le président est venu dans cette même sillage. Et le, le, le, Khalif général des Mourites avait demandé à ce demandé à ce que les pèlerins respectent le port strict de, de masque. Il a demandé à ce que il y ait moins de, de, de, de, de cérémonies. Donc, raison pour laquelle le président a décidé de venir à Touba avec, dans cette manière. Donc, c'est pourquoi nous, en tant que le mouvement qui lui représente dans le département, nous sommes dans l'obligation de venir marquer notre présence pour montrer aux étudiants, pour montrer au président, je dirais, que nous, ces étudiants, nous sommes toujours disposés à lui accueillir n'importe où et n'importe comment et à n'importe quelle heure.